asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi mbokk taal yi gannaaw ma leen nuyoo baax baax di leen siyaare tey am mbégte bu baax baax di jàllale benn message ñun waa kuréelu Saadatu Sibiyaan ci waa Daaru Xudoos deuxième daaraas ñooy am mbégte di leen yëgal bis bu mag bisu bisu bisu safar li ñu baaxoo amal mu ngi doon suba insha allahu rabbi fene eh, deuxième garage Mariana di si woo ñëpp nag di si sàkku seen teewaay yéen ñëpp maanaam bis bi danañ fa amal njàngum alxuraan ak njàngum kuréel kasida ak njàngum rajas yooyu yëpp dana fa am maanaam ñu fi woon ñëpp dana dana suñu jiil itam dana fa jàng waaw ak kuréel yoo xam si ne yu mucc mën a jàng lool dana fa dana fa jàng maanaam bis moom ay tout tànk ñoo koy amal bëgg suñu Tuubaa lool di ko def moo tax ñuy jàlle message bi nii di leen ko yëgal ñun ñëpp ku ci mën nga teew si suba la jàmm la incha allah rabbi maanaam ñi xam si ne maanaam si liggéey bi leen bokk suba incha allah neuf heures day fi fekk incha allahu lii ñu commencé liggéey bi li ñu jëm si wàllum baas beeg yooyu yëpp ñu commencé incha allah balaa naaje mu àgg ñu mën li jëm si waaw ñu soo suñu mbokk jigéen ñoo xam si ne tamit defar xeeti euh, berne yi ñoom tamit ñu ngi leen soñ bu baax a baax ñu teel a ñëw waaw ak cotisation yi tamit boo joxee ko maanaam ñu joxe ko rek te xam ne bis moom ñëw na ba pare su suba jàmm incha allah السلام عليكم ورحمه الله